mais Inde ak Sénégal dañoo yàgg diggale bon nag tey bu fekkente ne vaccin yi ñëw na ñoom si lu ñu am ñu jël si jox ñi loolu day wane rek que ne seen nekkin ak ñun ñu mës a nekk toujours ñoom gëm nañ ko bu baax ñu leen si remercier mais Inde itam xam nañ ne Sénégal réew la boo xamante ne wax dëgg yàlla réew mu mag la ku ko donc euh, ji teraanga ak ngor du ko fàtte motax suñu diggante vraiment nek diggante bu dëgër ma ko aussi remercier si turu chef de l'État son excellence le président Macky Sall di wax né commencé nañu vaccination bi si suñu donc dolay bop, parce que dose yi jëk ñëw muy 200 000 Sénégal moo jënd lancer si vaccination après jot nañ 324 000 doses si xamantene COVAX la muy AstraZeneca tay jot nañ 25 000 doses lolu nak day campagne bi ngi ci vitesse de croisière d'ailleurs euh, vacciné nañ lu tollu donc dose dafa solo deuxième dose ñu jël vaccin bi depuis le lancement man nañ semaine bi la commencer processus engagé de deuxième dose bon accélération bi dana tar

Euh, si vaccination mu maîtriser euh, ko lu ëpp ñeent fukki nous suñu donc euh, gérer ay vaccins. bon de mbiru vaccin du nek loo xamante ne dafa bees vaccination donc beaucoup de def da koy gunge ak ñoo xamantene ne dañuy surveiller ba lu ci am rek ñu mën ko donc indi pour que ñu xalaat si ba fi ñuy wax ak yeen suñu système de surveillance boo xamantene bëss bu nek. day liggéey pour xool effectivement ñu jël vaccin bi yan jeexital la am si ñoom waneegul dara loo xamante ne danañu tax ñun ñu am inquiétude